en attendant tey ajuma la Babou Ndour euh, dem na fekkee li nga xamante ne moom mooy prière bi ak ñaan yi sénégalais yaa nekk Yamoussoukro ñaan effectivement fii dafa am benn benn mosquée ñu ngi koy woowee maanaam fa la sénégalais yëpp di retrouver tous les vendredis pour euh, maanaam julli aljuma ji tey bu ñu jullee ba pare man daal waxtaan naa ak ñoom ñoom daal dañu jàpp ne ñoom Euh, Sénégal ñaana nañ ko bu baax a baax pour ñu jël li nga xamante ne mooy trophée bu ñu jëloon mais ñoom dañoo jàpp ne comme Côte d'Ivoire en ñëw Sénégal jël fa Coupe d'Afrique bi léegi nag dañu jàpp ñu bor la bor boo xamante ne Sénégal Côte d'Ivoire daf ñu ko ameel comme que ñëw jël Coupe d'Afrique a jël Côte d'Ivoire jël Coupe d'Afrique bi ñu xool seen réaction ñëwaat <laughs> maa jóg di ko ñaan waaw ndam rek incha allah buñ tiit buñ ragal ñaanati naa ñaanati naa lay wax parce que nin ko jële woon Cameroun loolu lan ñaan yàlla encore yóbbuwaat ko Sénégal nu bokk feete ko fa incha allah. mais naka wu fii tey pour mën a supporter gaynde yi. waaw jàppaloo ñun ñëpp rek comité sénégalais yi nekk fi yëpp nekk benn incha allah fas yéene mobiliser benn sénégalais du des pour dem ci stade bi supporter sunu lions yi. depuis que bi ñu demee aéroport di jël yi. waaw yooxu ba son fu ñu moom bu dee di mënuma wax sax man xaar ba bés match bi rek suñu instant moom dañoo def ñaan instant bu soobee la bu soobee la suñu borom non day dellu Sénégal bor bu ñu lebaloon boo xam ne dañ ko lañ ko dañ ñu ko lebaloon ñu ko ameeloon moom la ñuy jël si 92 dañ leen a lebaloon bor booba léegi nangu ñu koo fay kon dañuy ñëw jël si ko kaan bi incha allah dañuy dem ak moom ñaanal nañ ñaanal nañ gaynde am ndam rek waaw comme dañ ñoo lebaloon bor keer 92 dañoon ñoo ko organisé woon ñoom ñoo jël ko yàlla di def tey ñu adduna daw daw tey ba tey ñoom ñu organisé ko ah ñu ñëw jël ko rek bor bi mu nekk 1-1 waaw comme li ma leen ko waxee woon rek nee na na Sénégal na Cameroun mooy làmb ji fi amoon daaw kon yaakaar naa verdict ba la ñuy xaar ba tey te incha allah verdict bi ci kàttanu yàlla kuub bi danañ ko jëlee bu ko Sénégal. boo fii si fii Yamoussoukro xam ngeen ne mooy Lakayma mooy ville de la Tiranga si Yamoussoukro Lakayma capitale de l'économie donc fi Sénégal yi mobilisé nañ taxaw nañ comme il seul homme. rek ñaanal gars yi rek nu jël ndam bi nañ ko jëlee ñu jëlewaat ko noonu rek tam ànd lépp ànd ak jàmm rek ndax xam ne réew mi ak réew ma la ñu nekk benn la rek ndax ñoom si ñoom la nekk di fi wut ci ñoom koom. kon nañ def lépp rafet rek ñu def ko ci jàmm rek ak salaam. ñaanal nga gars yi sànq bi nga bi nga doon julli sànq si aljuma ji. bañ a ñaanal ñoom moom ñaanal lañ leen ndax dañoo bëgg ñu jëlaat ko ndax Sénégal nekk ci jàmm ndax Sénégal foot ñu jël coupe bi rek mooy tax lépp nekkaat ci jàmm ndax maana mooy féexal xol yëpp mooy tax mu neex it te day gën a neex. di ñaanal Sénégal jàmm di ñaanal Sénégal météo réew mi jàmm fii jàmm ñun ñii ñun ñëpp benn lañu fii xewle ñun ñëpp ñoo ànd ñu booloo ma ñun nag lu ñuy laan ñun ñëpp Sénégalais fu mu mënti nekk ci monde na nañu jàpp eh, raxas xol yi ànd liggéey suñu réew yàlla may ñu lu ñu bëgg. Euh, mu doon